rek yooyu noonu man leen yooyu yëpp jaru ko nañ teg lépp ci suuf. pour lan te bàyyi yoon def liggéeyam. lance pour lan. Ah, xëy na pour ñu nga xamante dañuy war a dem seeti bu gàllankoor. waa Tamba moom boo bëggee dégg dëgg. Hmm. Sidiki Kaba lañ àndaloon. Hmm. Sidiki daanu na waaye Sidiki Kaba lu tax nekkul di wax ci réew mi moom hmm. yëpp bu yëpp génnee. Sénégal dafa ci réew mii. ci mim réew ci mim réew. yow Khalil ci nga doon xam ne ndekete man ci danger laa doon dund. ay ca Tamba nii na saa suuf. ma actuellement. ay man fan laa jëm ak. yaa ngi sànni xeer. waaw mi ngi nii de lii de la ma mu ngi nii. saa suuf nii ak boroomi jakarta yi ma mu ngi sëfee nii nii nii nii nii nii yi yàq nag pour lan la. Hmm? ma xool ma xool ñii ay nervi ay lan lañ ay nervi lan. nervi yi lu mu doon. ñu ngi nii ay nervi lan. nervi yi la Barthélémy Dias àndoon sànq. ñooy xeex ñu ngi nii ay nervi lan ay nervi Barthélémy Dias lañ ñoo la Barthélémy Dias àndoon sànq. ñii ay nervi lan c'est des nervi ay nervi lañ ay nervi yu Barthélémy Dias moo leen indi foofu moo leen jógee Dakar indi leen fa. mais pour pour pour lan mooy bii bi. ay nervi waaw. ok mi ngi nii ñu koy suivre ndoo ak bokk internet yi en direct bu fekkee ni mën nañu am son Fallou wala Daouda mu nekkee ni mën nañu am son retour comme ça mbokk internet yi mën ko mën ko amandoo ak ñun gis nga. amul sens lii lépp moo bëgg bugaan la. garde rapproché militant de Pastef laa dégg nii. garde rapproché. ak militant de Pastef. ne garde rapproché ak militant de xeex. Ah. moo tax may la ay nervi lan ñii ñoo indi ànd ak Barthélémy ñëw. dégg olof. mais lii c'est pas c'est pas. déggoo may la ñii ak Barthélemy Dias moo leen jëlee Dakar indi leen ay nervi la le en chemise moom laa xam ne sax ci ginnaaw Barthélemy Dias c'est eux ñoom la. ok ok. yéeme na. mais ana nit ñi ana nit ñi. sànni kenn police ñoo na pour pour pour kii leen xoolal li. mais mais mais mais mais. xool waa ji yat bi mu yor lii amul sens amuñu sens. ok lu ñuy xeex yoon def na liggéeyam police ñëw na police calmé na leen ñii ñëpp Dakar lañ jëlee booy yi yëpp Dakar lañ jóge ñii ñii ñëpp Dakar lañ jóge ok te Tamba dafa am lu fa amoon de. lu fa amoon. Tamba. Hmm. waa kër si Moustapha yi mu fa xeex waa kër Macky Sall man rey fa ay nit. yéen nga fàttali loolu. mais Bougane la ñu téye fii est-ce que jar na lii moo ñëw fii pour seet si Bougane. est-ce lii ñii ñëpp moo indi ñii ñëpp moo ñii ñëpp moo bi ñu am nii man laa xamul. amul sens bi. amul sens. xoolal moto jàmbur daaneel moto jàmbur sànni moto jàmbur. après amul sens amul sens li ñuy def nii amul benn chance amul benn chance xam nga police def lii. lii lii police du sànni xeer. ay nervi leen police buy sànni xeer foo gis ay nervi leen Barthélémy Dias moo leen fi indi amul chance li ñu def nii lii ban chance la am. ban sens la ñoom ñii ay doomu Sénégal lañ. ñii ñu toog léegi policiers yi ñëw nañ intervenir léegi ñoom ay nervi lañ mais kon dañoo jàpp seen bopp comme ay garde corps. ay garde corps lañ jàpp seen bopp. mais yëkkati moto jaam bu dóor di tëmbali xeer loolu nerve kay def ak yore yet nerve kay def lii amul sens. regarde-moi ça. ci yàlla. amul sens yow Barthélemy Dias nga ñëw saaga ndey bërki démb nga rey kenn tey nga ñëw saaga ndey ànd ak ay nervi xol ñu ngi dugg ci kër gi da ngeen dóore ci biir kër gi. Dakar la leen jëlee de sañ nañoo dugg kër jàmbur. ñu ngi nii gisoo leen. sañ nañoo dugg la leen jëlee de Dakar la leen jëlee regarde ça. léegi alalu jàmbur yi ngay yàq alalu jàmbur yi yàq nii ban chance la am. ngay yàq ñu lay filmé ban chance ban chance la am police ñëw na intervenir. ñu ne ñu ay garde corps lan de nee nañ ay garde corps lan de xool lii regarde moi ça Barthélémy Dias moo nekk def lii lii Barthélémy Dias moo ko digle xoolal mu ngi nii. li jaar na yoon nii. lii toog la lii toog la assassin la. war na a fay la. li gars yi naan ay du yem ci bopp borom. Mm-hmm. Barth criminel la lii ñuy woote ni nañ fexe rek. Barth criminel la na na rey li. parce que Barth rey na Ndiaga Diop mën na rey keneen. Euh, euh, Barth kenn waru ko jox sax mairie bi koy joxe. Euh, Camara je pense que les Sénégalais yi may wax sànq rek nous sommes assez conscients il y a certaines de choses yoo xam ne lii boo ko gisee doo fi gis sax une trentaine de personnes les forces de l'ordre ak ces quelques ah, personnes yi nga gis parce que franchement yor ay xeer yor nañ ay armes ils sont armés yor ay yat yor ay xeer fekk alalu jàmb di ko yàq parce que lan. pourquoi mais réussir ñu lu ñu bëggoon. parce que fii ana nit ñi sànni xeer. nit ñi leen noo koy fekkee ba ci dëkkam sax di campagne. Tamba gi ñoom ñu fa dee di sànni xeer ñu Tamba. Tamba dëkk bu yaatoo yaatu la. bu dëkk bu gën a rëcc ci Sénégal mooy Tamba. Mhm. te booy Tamba yi ma xam. li jaru ko te booyee duñ bàyyi de mais lii amul sens li ban chance la am. en tout cas benn chance borom ban nga yàq moto jàmbur. Mhm. léegi yéen nga bëgg indi emploi ci réew mi jël moto jàmbur di ko yàq xale bi def cag-cag ngeen yàq motoom Bart li mu jaar la de Bart li mu jaar moo fa ànd ak ay ñu yor ay yet yor ay arme di tabaase waa waa waa waa Tamba li jaar na yoon en tout cas xaw ma moom la xaw ma du moom mais mais mais mais moom la ak lu ñu mën lu ñu leen mën a jox wala police ñëw na que li ñu bëggoon mooy nit ñi génn amul sens ñu xeexante ak ñoom amul sens amul sens. Barthélemy Dias gisuma sens moo jógee Dakar importance jël ay car ak ay oto yàpp ci ay nit ba pare yooyu indaale ay nervi nervi yi ñëw Tamba di tabaase waa Tamba di yàq seeni i moto yore yet yore xeer pour di faire du n'importe quoi. pour ñu intervenir waaye léegi la question qu'on nga xam ne ñoo jàpp seen ay moto di ko yàq bu seen i borom génnee nag. après lan lay jur moo tax la coow lañ bëgg a wax après lan lay jur loolu wax c'est eux ñoom ñii la Barthélemy Dias moo def lii lii nag lii fekk ni dañ ko bëgg a bàyyi ci réew mi nii dañ ko bëgg a bàyyi nii ah kon réew mi amul droit Hmm. nee yaa xotti yére mbugaan bi. ah man de ma kan moo maa xotti yére ji mbugaan bi. amul sens. man maa ngi woon fii deew ma fenn bay xotti yére jàmbur. nervi yi ay mbër lañ ak ay dof ñoom ñëpp kenn mënu ci jënd sa bopp moto. booy bee yëkkati moto jàmbur di ko yàq. waaw mënul jënd boppam moto. Euh, xale bi lijjanti ba lijjanti motoom. caporal caporal ne nervi nervi nervi ñoom duñ leen supprimer ban sens lañ. day dañ nervi day dañ. non mais dañ leen jël comme ay garde corps mais ñii boo leen xoolee kay amu ci carte professionnelle. parce que ay nervi lañu dañu entraîné. mais comme ñu lañ neex jël seen doole di ko exercer. ci ci population bi kenn amu ci carte professionnelle benn te nervi te garde corps yore yat garde corps yore xeer boo yoree xeer ak yat rek léegi nervi nga lii ñii ay nervi Barthélémy Dias lañu. ok c'est des nervi de Barthélémy Dias gisuma fi benn garde corps nag bu ànd ak Bougane xamee naa garde corps am yëpp. Hmm. loolu man ma ko ciy laaj ba mu set mais ñii ay nervi yu Barthélémy Dias lañ je l'assume. Hmm. waaw ay nervi lañ. ñu ngi nii Barthélémy Dias moo jëlee Dakar indi leen ñu tabaase waa waa town bi ba police ñoo intervenir ñu ngi nii police dañu waroon a arrêté ñoom ñëpp. ci dañ leen waroon a ñoom ñëpp. mais Barthélémy Dias dama xamul moom lan moo ko ci ci mbir assassin la moo reyoon Ndiaga Diouf moo reyoon Ndiaga Diouf démb de Bart mën na reyaat kenn suba de Bart. Hmm. mën na reyaat kenn suba Bart arme mi yor dañu ko war a nangu parce que fuu la mën na rey kenn day day dóor ay vingt après mu rey kenn du ko amul sens. si yàlla c'est grave et des ñoom la c'est les nervis de Barthélemy Diaz ñoo nekk ni kenn ci ñoo amul ci carte hmm. nan la gàddu koor di sànnee xeer. Oum Khayri comment tu as trouvé ça. désolant euh, ndax euh, ndayasu li may wax sànq ba tey rek ay du yem ci bopp borom gis nga am na yenn yoo xam ne je me dis que képp képp jaru ko. ay élection lañ gaa kenn ku ci nekk tu as façon de faire la mais tey jii ki nga xam ne moom lañ yàq motoom bu génnee. ay xaritam génn ñeneen mais mesure yooyu après dégâts yooyu fan fan fan lañ koy mesurer au fait xam nga lan la ñun li ñu nekkee dafa doy mënuñoo boole xiif mar mhm. boole ci rafle dëkk bu bett kenn gisul xaalis kenn déggul xaalis ñu nekk ci reddition des comptes ñu bëgg yee benn fitna encore nañu mhm. yërëm Barthélémy Dias daal moo indi ay nerveem ñuy attaqué askanu Tamba mhm. di leen yor ay yet yore xeer yàq seen i moto ñu ngi nii ñoom la. en tout cas ah, c'est grave c'est grave ce qui se passe actuellement te lii gis nga Sénégal daf ko daf ko dépassé dañu duggoon benn stade boo xamante ni 2021 2023 lu métti la ñu dundoon Sénégalais yëpp di ko yëg Sénégalais yëpp di ko méttitlu donc bu ñu fi yeewaat fitna bu ñu indiwaat yenn yi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy commencé di gis nii parce que tey jii lii bu fekkoon ni waa Tamba du ñu génn taxaw jàkkaarloo ah, ak ñoom dafay nekk dafay nekk leneen oui te bul xam dans a am lii nu mu gën a gaawee nañ ko parce que ñoom. espérons léegi ñu ñibbi. espérons ñoom damay ne Barthélemy Diaz. Mm. tëjoon nañ ko mm. Kédougou da kaa fàtte. ci nguuru Macky Sall. en na ko Kédougou. ñoom ñii at mu ñu salaire Tamba bi dañuy bëlde nii rek après ñu ñibbi. Khalil mm-hmm. Bougane nag ma ñu puus ba mu dugg ca guuta ga lañ fay bàyyi ak seen kër ñoom lekk seen émission par ko reetaan. Khalil noo gisee noo gisee image noo ko jàngatee. lii dama xamul ban sens la am. ak ban jubluwaay la ak képp koo xamante ne yow ko jiite. lan nga ci soxla laa xamul. parce que nit ñi ñoo tollootul foofu soxlawuñu lii ñi ngi tal leneen loo xamante ne am na loo xamante ne dañ koo dund ba pare. Mhm. te di wër nit ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo jàpp ne ñoo def loolu pour ñu tegaat leen ci yoon pour lépp daal di leer. man nag lii ngay gis nii léef yi ñàkk fayda la ak ñàkk fu mosu koo weesu. dañuy naan à chaque fois jur mu dee mooy yaradal waaye déedéet lii mooy yara hmm. topp koo xamante ne gënu la juddu ëppalewu la dara nga ne da koy garde xaw ma garder koo xaw ma garder lu kenn xamul hmm. tollu na nga war a toll di ko xeexal moom mu toog fa muy toog nga dem ci dëkkub jàmbur ci loo xamante ne yow sa yoon nekku ca nga nekk fay di xeex di yàq alalu jàmbur loolu ñàkk fayda gënu koo weesu te boo ñibbee ndax di nga fier ci loolu di seetaanaat image yi lii mm. ma doon def nii pour lan laa ndax moo ma koy def am na loo xamante ne moom moo ko jarul te yëf yi moom moo ko matul mm-hmm. te ñun ñoo tollootul foofu gis nga maa ngi lay defal lii pour que nga kontaan ci loolu da koo jarul fii ku nekk la ngay liggéey buñ te toll la ne xam ne diw liggéey na Sénégal yi ñooy taxaw ne liggéey nga mais lii amul benn sens te lii Sénégal gii jàmm rek a fi am parce que am na loo xamante ne talatuma ko sama moroom talu ko keneen ak keneen talu ko. Mhm. bu ñu bëggee dem foofu sax nit ñee lay jëlee tege la à côté te man lenn laa mënta yàq euh, d'accord. jël alalu jàmbur di ko yàq te xamoon na boromam def ba am ko lii lu mhm. ñaaw la te kenn rafetlu ko. Mhm. lii nag am na loo xamante ne dama jàpp ne bu fekkente ne dañoo xamul enjeu bi fi ñu toll. yow mënoo ne sàmm sa kàddu ba pare. jàpp ne ñi fi nekkoon li ñu ba pare nga taxaw di saaga di yàq ay loo xamante ne loolu la boromam di suturloo te yow moo même wax naa la ko sànq nga war a demaat ci ay fan yu néew ci élection wala jàkkaarloo ak askan woo di leen di expliquer loo leen di wax. ak loo leen di expliquer. nañu def ndànk rek te xam ne fii nii moom ñu fi yàlla teg teg na leen fi ba pare te saa yu décidé ne dafay jeex dafay jeex. Mm-hmm. yàlla nag bu la wërsëgalee nga jàpp ne lii la ma cëralee nga ñii nga xamante ne ay gros bras lañ xaw ma ay lan lañ leen di woowee mhm. ay ñu ñàkk fayda lañ ay ñu ñàkk ful lañ man mënum xeexal nit xeex boo xamante ne gisuma njëriñ li nañ bàyyi yëfi caaxaan yi nekk ayca ah. xel rek ngeen yóbbu ayca parce que xel mhm. xol a ko yor léegi nag xol bu demee ba am benn genre mbañ gi ci nit ki mbañ gi nga am ci nit ki léegi nag sam xel day dof. mais est-ce que bañ nekk aussi ça vaut le eh, dañ ko bañ. am na solo bu baax ah daray àdduna ma. dañ ko bañ ni de moom. oui fii lañ koy oui bañ nañ ku leen lijjantiwul. Mhm. bañ leen toppatoowul leen def li ñu doon. Mhm. <laughs> li ñu doon Sonko lañ bañ tey tur Sonko ngay bay dégg ngay dagg saaga ndey. am na solo bu baax ñu tàggatoo ak loolu Binta Dramé euh, bébé Ousène yéen tamit bëgg nañ leen bu baax a baax a baax Ndeye Mbaye Pape Ibrahima Faye euh, Fatel. ak euh, Aline Diop Babacar Pouy ñëpp jaajëfal nañ leen Kaddu Diagne euh, Fama Kassi yéen ñëpp jëfal nañ leen bu baax a baax a baax euh, jaajëfal de Sow mi ci xarala gi ñu xool ki nga xamante ne moo njëkk commenté Mbaye Diop ñu jaajëfal leen am na kuy laajte waat ndax suba am na papa la nga yàq émission bi am na koy laajte waat ndax suba am na bien sûr suba am na bu baax a baax. bien sûr suba am na mais pas